dafa mel ne damay jiital aw léeb door cee teg li ma ci bëgg a teg dañu wax ne rabi àll yi dañoo jekki ba yàgg ñu dajaloo mm-hmm. sunu àll bi day jaxasoo na jaxasoo boo xam ne ji war nañ ko waxtaane mm-hmm. ñu ne waaw lu fi xew ñu ne àll bi dafa mel ne jikko yee yàqu mm-hmm. ndax bukkee ngay jël yàpp jàmbur kay nee ngay fàndaate fee til da ngay jàpp tefi jàmbur ya nangam nangam léegi nag ñu war a waxtaane yooyu parce que diko yooyu jikko yàqu la na jóge ci àll bi ñu ne nañ defar kongara ñu dem benn congrès génne ca congrès bi ne léegi daal pour nu réparer ko na nga association tudde ko jikko ñu teree son association tudde ko jikko waaye nag ci association ko dañu nañ bureau ñu ni béréb yi ñanaa ci ne ñu ni nañ tànn na ñay mu nekk suñu président waaye nañ ci tofal gaynde mu nekk vice président bi bu ñu noppee nañ ci teg segg moo it mu bokk ci béréb yi waaye nañ ci teg jaan ndax ci àll bi la dëkk ci kenn yebu ko bu ñu noppee it bukki ñëpp xam nañ ko ci àll bi nañ ko ci boore

ko fàtte sama wet lay bañ ndax tiir di jooju ne daf may déranger. ñu ni segg looy bañ mu ni man ku ma xool xool bu bari lay bañ ndax damaa bari kersa. ñu ni jàll luy sa jikko mu ni ko joggi saab géen lay bañ mooy sama jikko koo joggi damay mat ndax sama secret ci la ñu ni bukki looy bañ mu ni bi bukki amul bañ. kon moom rek moo joxul lu muy bañ moom. ñu ni waaw de kon comme noonu la. ki nee amul bañ nañ ko ci bind ñu bind ci loolu léegi nag war a door a liggéey bi ñu ne waaw dañuy lekk liggéey nañu lekk door a liggéey waaye bu ñu liggéey lekk wax jii may wax nag jubluwuma ci rek wax ko sànni damaa bëgg nit ñi comprendre ndax sénégalais li ñu miin mooy liggéey lekk waaye miin ñu lekk liggéey li leen di yàqal nag mooy liggéey lekk ci la bokk liggéey ku nekk fii ba déwén di testesi yemale ko ci benn cérémonie mooy liggéey rek. Hmm. léegi liggéey nag mooy lekk lu dëgëral sa biir nga dem liggéey def li la war loolu boo ci yemee li nga am du ne kon nag ne bureau bi lekk ci liggéey. ñu ne waaw kon nag lekk te liggéey ginnaaw nag wi dañ ko waroon a boole ci seen añ ñoom nañ ko jël. ñu ne ay fenn ñu ne ana ñiy lekk yàq ci yéen nag wi mooy seen añ bu ki njëkk a ni bëri ni ñoom. ndax moo na amul jikko waaye jikkoom bëgg na yàpp. bëgg na yàpp mooy jikkoom loolu la ko war na wax waaye waxu ko denc ba foofu mu door a feeñ. ñu daal di ni ay jokkoon bisimilah jël leen nag wi ñu séddale ko jox cinq benn pool mu gàddu ko ni comme damaa bari kersa naa dugg ca jeer gëre làqu fa lekk ko bukki ni ko déet. lekk bu ñu mu gàtt pooj bi bu ko ci jege di ko ci jomb. ci mm-hmm. jomb dafa nit ki ba mu am lu muy jomb léegi nit ñi li ñuy jomb bëreetul te jomb dafa war a nekk benn alkaati buy escorter borom. Mm-hmm. jomb mooy jur jomb. Mm-hmm. jomb mooy jur ngor. ngor mooy jur diine. diine ji ragal yàlla. est-ce que ragal yàlla nag bu xasee am ci ak nit mën na koo jural muñ. maandu dëggu doylu yaru nangoo joxe.

di wax rek gars yi ñu partage te maye ay kër te abonné si page bi te di ñaan yàlla rek si bésu gàmm gi ñu nekk yàlla nangul senegale yëpp seen jaamu ak seeni ñaan ak mbooleemu jullit ak mbooleemu si at ak mbooleemu bànni doomu aadama ndax ni ma koy waxee rek yonent bi moom yàlla yónni wu ko si musulman yi rek yàlla da ko yónni si barmi doomu aadama képp kuy nit rek am nafsu rek ak mala yi géej géeg jaww géeg ndox meeg gaynde yeeg jën yeeg lépp lépp rek li nekk ci kaw suuf rek looloo tax ñu ñu bi kon ñun ñëpp ko bokk ak loo munti gëm ak loo munti xam nga yëg ko nga bañ ko yëg kon du mas maas ñaan bi nañ koy maas num bi ci àdduna bi di si suñu procès bi suñu procès bi tey sans titre la parce que tey dañuy def dañuy waxtaan nii rek indi jiixi jaaxa si xelu nit ñi léegi nag li fi nekk li procès bi mujjee am ñu renvoyé ko waat parti bële génn na laaj cent millions à Californie cent millions à Californie léegi nag moom ay avocat ak ñi ko doon plaider ak ñu doon romb maayik bi xëy na déglu leen ma moo tax ñu teg seen gat waxuñu si su benn Fuuta Tampi daw na moom dafa yolleeku fereeram bi waxam changé na kon Ahmed Khalifa Cissé ñun ñëpp déglu na bi muy njëkk génn di témoigner Californie bi ma ñëwee fekk naa leen moom ak xale bi seen nekkin rafetul xale bi maa ngi ko fekk muy nàcc xale bi maa ngi ko fekk muy nàcc Kaliphone na ma ko fekkee neexu ko parce que takk na ci deretu xale bi kon la ma doon wax rek mënoo fi jëlee nit këram xale bu ndaw vingt ans nga am plus de quarante ans yóbbu ko indiwaat ko jàllale ko hôpital ba pare jiitu ko ci réseau bi fenal ko nenen coup et blessure lañ topé Khalifa ñi la neneen nañ si viol haw yoy yep mu na ne parce que lama lañ doon wax rek durant 3 heures de temps nga nek xalé si biir auto di wër ci restaurant yi ñu yow xalé bi ban sujet ngeen doon waxtaan day jaaxal nit ñi lu dul rek bi giwin la xalé bi giwin la xalé bi giwin la tu mets sa vie en danger bobu sax war na ko yok si dossier Khalifa parce que actuellement dafa may viwu xale bi en danger il y yàq réputation xale bi xamaa ñaan avocat bi mu yok ci dossier bi ndax la may wax rek dëkk bi du nga koy defar koy défar dañ koy commencer ci waqati ba bi mom la doon wax léegi ci waqati parce que euh, euh, li fi nek li fi nek mu ko doon servir nit ñi li mu am da ko doon ko servir doomu aadama yi tey du lettre am ñëwé rek naka nangu a nangu xam affaire yi mo démé non ko ayé rek wal sa momé xali nak mo ayé na wal momé voilà légui nak Ahmed Khalifa Ahmed Serigne Koddal mu deuguer ta du daan parce que man tour bi sax mënuma ko mënuma jaar ci Ahmed Serigne Koddal rek la mën wax Ahmed c'est mom mënuma ko wax Serigne mi ta du daan mom tamit dina wuyuti parce que dem ba mu génnee na Sénégal yëpp gis attaqué ay avocats. mais nous na ndaxte ñun ñuy du sénégalais c'est pas un sénégalais c'est un gambien c'est un gambien parce que def Il ay recherche xam il n'est pas d'origine sénégalaise. d'origine gambienne la bu Sénégal Il am lien de parenté donc yooyu gambien yi di am comme ñu la ñoom rek am fii yaay am fii ñi jaay am fii majjën am fii maam noonu la dundee ba am carte d'identité sénégalais mais duñ koy xool d'origine am na tamit carte d'identité gambien parce que double nationalité la yor moom nag seen liggéey seen liggéey noonu lay demee parce que dañuy soxla promotion dañuy bëgg nit ñi xam leen pour ñu xam leen foog ñuy créer ay buzz foog ñuy dugg ci coowu jàmbur foog ñuy attaquer Macky Sall wala ñu attaquer Ousmane Sonko pour patriote yi ak sénégalais yi nek xamni pour mun leen xam pour ñu mëna siw plateau yi mun leen inviter mooy seen liggéey même amna na benn vocal bu bo xamé dafa fuité dina ci ñëw xam ni falay tejé légui nak mom waxna ay waxam wax yu bari expliquer explication bari dem na sax ba xale bi mbokam la mom ñu jaay la ci xale bi ndax te yow day fenn mo xale bi bokku ñu dara. parce que tàmm ñu wax dëgg parce que kuy dem naan du li yàlla sàq ay cëru doomu aadama nga ne ko du gàttee ma guddalal la ko du du fekkee dëgëratul ma dëgëral la ko ba pare doo bëggee dootoo daanu mën ne ko yow yàlla daf la boole si malaaka yi muy yónni yi muy yónni du xale bi du du ndox mi amee 40 jours si biiru yaayam yàlla nekk foofu di tabax ba xale bi am 9 mois. suñu borom fëgg ko mu jóg pour génn si àdduna yow nga ne am nga màqaama suñu borom boobu ba cër yooyu suñu boroom di def si biir nit yow nga ne mun nga ko yokk mun nga ko wàññi ku dem ba ñeme yàlla faaletoo doomu aadama faaletoo juge faaletoo procureur faaletoo kenn lu dul lekk sa nafsu léegi nag sama gaay dañuy ñëw si natt bi natt bi parce que sëñ sëñ sëñ Ahmed koddal jaay bu dëgër dafiy génn mu woote natt mu ne Kali foog ñu wutal ko foog ñu wutal ko foog ñu ko nag Kali foog ñu wutal ko ay càngaay Kali foog ñu defal ko ay ñaan moom nag laaj na mais léegi dina ñëw tamit si nattu 100 millions bi nu koy lijjantee ba fay ko xale bi parce que kooku moom xam naa ne du nga ko deful tey du si xajul

solution bi li ma gëm comme ñëw naa rusuñ ma. agressé moo ko vidéo ba mu may vidéo yëguma ko xaw ma ne mu ngi may vidéo ba mu ko defee ba pare mu ngi may vidéo coono. métier mi di lu noobul. waaye askanu Sénégal jàppee ko lu ñàkk fayda. bala nga koo xam nga def ci erreur. dinañ la ko ŋàññee at. waaye fekk yaa ngi def lu baax. doo ko sax yek mhm. sa poste du ko yëg sa jëm du ko yëg pour ñu jox la raaya bi nga méritoo sax fay jëfé kon suma téwé fi am ay kangam yu fi jaaroon ñi mat ma nawlé ñi mat ma sang may am bëkté di nuyu ñu lay sétan yépp ñi nga xamné du nit ñi lañuy sétan way seen bëss lañuy sétan di leen nuyu di leen gërëm ci fidélité bobu nonu di nuyu Maulana Alhaji Cheikh Omar radiyallahu anhu nga bari nuyu euh, yépp ay baax la tontu lol dikke ma fan la kat. mooy toog naa ban toog def mooy toog naa ba guddi génnoon ñëw woo kalifon ngir am na lu ñu waroon def mu wuyu ma ma dégg ne coow am na may woote di essayer yenn saay ma jot du wax lu leer yenn saay ma jot ko ba xam ne problème am na mooy expliqué ma ne xariti Mariama bi ma woo Mariama boobu fan nga nekk maa ngi ci kër gi. ma ngi jël taxi ñew jël la ñu dem mu ne ma commandé na it yow jitu ma mu expliquer ma fan la kër gi nek bi ma wàccee taxi bi dégg coow ci laat ñew fekk leen melokan bo xamne ñom ñaar kenn neexu la yaayi xale bu jigen bi fa laa ko fekk mu taxaw visil ba ngi maye distance kalifon ak xale bu jigen bi jege wante ne lool mhm. ma séparé moom avant mi ñew fekk na kalifon door na xale bi door yu metti parce que bobu il était seul si auto bi motax bi ñuy wax Kaliphone xale bi moo yàq rétroviseur bi ak moo toj yi da doon dóor si oto bi dóor yu metti parce que moom lay wax fii parce que il sait pas mentir ñu déglu ko. den pousse Kaliphone dans deux wala trois mètres. na ko noppi ma régler problème bi fi ma ñëwee di laaj xale bu jigéen bi rek mu agressé ma man ci kanamu yaayam yaayam na ko bàyyil nit ko Euh, kii bokkul ci. d'accord mais mais Serigne bi lu tax certainement bu doon inconnu inconnu nga ci moom doo ñëw rek mu mu xëy na agressé la entre guillemets lañ mën a wax lu tax mu am courage vraiment nga ñëw rek xëy na li nga bëggoon mu mujjee si xoloo yéen ñaar. Euh, du ma mun a tontu loolu nit ku nekk ak jikkoom ak melokaanam. raison bi tax xaw ma ko. Hmm. xam na ma ak xamuma c'est pas importance wala du lay bu jub pour nga agressé ku la defu dara rawatina ku lay àtte rawatina koo xam ne moo la mag. Hmm. si lendemain bi ñëwoon nga këram mu teral leen may leen jàmm ngir ñibbi ci jàmm xamut la xamoo ko à l'instant boobu xamantewuñu donc gëw ma ne raison bu raisonnable bu dee nit ku normal la war na ma agressé mais raison bu tax moom soo ko laajee dana tontu li ma xam mooy def na ko donc bi mu foofu coow li ma nekk di jéem a lijjanti pour ñu dem police ñu àtte leen ndax noppiloo naa kali mu noppi. Hmm. moom kenn attanu ko yaayam bi ko jur sa attanu ko mu jigi yaayam ci la ko doon dóor pour mu bàyyi ma. donc bi ma wiiree pour euh, dinaa tëb lu bari na ndax lu bari waxoon naa ko mais li li l'essentiel rek laa bi ma wiiree pour dugg ci oto bi dawal. Hmm. su may taal muy fay. mu ne oto bi du bougé te jotul téléphone donc mu dorat ma foofu bi ma doraté ci la ko dor pour mu bayima ma ndax munuma tok mhm. Jigen bo xamné duma sa morom jotewuma ak yow sequma lu sew ak yow nga am dorat di ma dóor ma bayila la donc ci la ma d'accord mu di ma wax lu ñaaw ma di ko ko delloo ndax man suma lamiñ mako mom d'accord yaayam ñew bok ci ma di ko ko delloo image bobu nak mhm. bi muy auto otokali bi ma ngi tok yaayam a fa gendarme bank fa lolou nekkul ñom ñaar dama ko fekke ci la peut-être ci la Kali génnee téléphone pour filmer loolu. moo xam. bu ñuy wax tey ci fond yi ba léegi lan moo war a mën a tax Kaliphone certainement nga ñëwoon ci loo xam ni xëy na da nga doon intervenir rek si digg si digganteem ak xale bu jigéen bi mu filmer la yan raison aussi moo tax kii di Kaliphone na filmer la Serigne bi Cissé. donc moom laa la doon expliquer ni bi loolu xewee. si la xale bi dóor ma ma ne ko duma sa morom de hmm. duma sa morom fa la vidéo bi dooree léegi nag ndax fa la commencé wala déedéet loolu kali moo koy tontu ndax téléphone am kali mënuñu wax lu tax mu filmé la non duma ko mën a tontu loolu moom moo koy tontu waaye xam naa ne neexu ma donc fi may waxee xale duma sa moroom man police laa jëm looloo feeñ ci vidéo bi sa veut dire que man bëggoon naa solution solution bi li ma gëm comme ñëw naa rusuñ ma hmm. agressé ma yaayam bi ko jur mu ngi ca mënu ca dara du moo Californie ñooy régler seen mbir parce que buñ ko mënoon a régler yaayam du ñëw man ma solution bi moo doon police man responsabilité boobu laa ci doon jël di dem. looloo feeñ ci vidéo alors ñu bari gis ni aussi euh, sa responsabilité xëy na waroon na yem rek ci nga ñëw wax ak sa xarit dem mais ni nga réagir dafay mel ni euh, complice nga wala da nga doon xaw jàppale ki nga xamee ne aussi mooy Kaliphone ñu xam sa diggante ak a jàppale dama ko doon jàppale. dëgg ko na leer. voilà ndax man suma xarit bu tooñee dama koy jàppale buñ ko tooñee dama koy jàppale. su tooñee nag. ndaxte moom. position bi ma koy jàppale day wuute ak su tooñul.

wax sax wax sax mënatu ko wax sax mënatu ko kon duñu démé ba nga xamné ne ni moo ni principal ñun ñëpp xamné ni principal hôpital militaire la fofu amul caaxaan et ça coûte très cher Ben nuit rek ça coûte très cher moy pour na wax ni mooy hôpital bu gën cher ci Sénégal parce que fofu rek la mëna fajo fu mu nekk ni pour mu nekk en sécurité

xale bu jox cër ay waajuram la léegi nag li fi nekk te ñun ñëpp war ko gis dama la ñëwoon benn extrême buy génnee ni preuve sëriñ jaay koddal muy dëgër te du daanu ban xeet la ban xeet moom mu moom mu waxal boppam ban d'origine la bokk ak fan la jóge ak fan la jaar ak ni mu def bu dugg senegal te ñun ñëpp tamit après ñu xam ni c'est pas un sénégalais te ñi moo tamit saalum saalum parce que ñoo ñuy bëgg rey xool leen bu baax la ma leen wax fausse marabout yëpp ñi ngeen gis ci télé bi ki ñu wane Walf dinaa si ñëw après borom ojo yi ak tamit xawma sëriñ sëriñ yàlla xaw ma lan def yàlla mu gis booy saalum saalum yu perte yëpp saalum ñoo ni fii ne ay sëriñ men dañoo am dañoo am ay xam-xam te tëwee dem liggéeyi wala ñàkk dem si tool yi moo leen koy teg dafay l'extrême ici naa ko teg léegi gars yi baal leen ma rek bagages yi bari baal leen ma rek bagages yi bëri politique boo xam ne danga taxaw pour jël réew mi. am naa intérêt bokk ci yow danaa la gëstu dinaa xool ndax boo mën ne nit ku nit ku bañ Gambie dina jël one million register ko pour ne dafa bëgg a def parti su ma ñëwee nag xool yuutalaay suma xel mi jëfandikoo xam-xam bi ma jàng su ma doyee ma jàpp ci su ma doyut ma bàyyi loolu ku nekk sañ na yurlu ak bokk du dee. ok ba ànd ak yaay yame dosin mi yow ne EPA bi fan nga Macky Sall nga doonoo ko. ok yaa ngi ma continuer ca la ma doon wax. li tax Moussa Yéli Bathily doyut ma. ci mu laaj Gambia réew mu mel Gambia. mooy gisuma mut muti njiiti réew. ci ne mu ci comme ni ma ko suma sañu ma laaj legi lo na gis ni so na lo ko ci moom laag lan nga gisul yan da lañ nit wara am lu bacci li amul pour jité rew ben man Cheikh Ahmed Cissé suma jang mutul pour ma laaj rew mi politique Gambie ni mo démé wursak daf ci bokka awma wursak buma may loolu. pour ñu fal la da nga laaj am background nit ñu bari mbolo sa parti man awmako mhm. ñett yi ma manqué leen te mënut maa def njiiti réew Moussa Yeli Bathily amut loolu maanaam ni ma ko gisee suma bopp laa ko gisee si moom du maa ko gën wala moom a gën. waaye su dee jànga dafa lañ wax criteria réew mi jàng high school certificate until this minute high school graduate lañ wax te Moussa Bathily ne am na loolu. am yeneen yi ñu wax yëpp nekkoon duñ ko. waaw thank you so much nag jërëjëf ne am na ko waaye comme yow journaliste nga defal sa gëstu na am na ko. loolu kay liggéey la eh, waaye loolu laa laa wax IEC kon ñooñu njëkk a fiil ñoom ñi dem ba register political party kay ci turi Moussa Badjili ak ñeneen moom mu jiite woon parti boobu noonu ami nekkul seen flag ci jamono nii waaye munoon na ko nekk IEC def war nañ koo gëstu kon xanaa da nga bëgg a wax ne IEC dañ ñu fiil bugguma wax loolu li ma bëgg a wax rek mooy ne njàng mi mëtewu ko loolu moom leer na ma waaye am na ko amul ko comme journaliste loolu soo gisee ne njàng mi mut na ko jàppal na Cheikh wax na lu mu xam dafa juum. waaw su ko ñànga matutee nga ne Cheikh wax na dëgg. nga xam ne Moussa su làkkee angale rek ñu ne américain la kii nu mu déggee angale ñu bari man suñ plateforme si boppam gis naa ñu bari di ko kañ di ko naw di njàngal déggam angale bi ak ci waxee angale. if you give me the Gambia for ninety days just ninety days ah doo wax la ñu bari loolu moo leen a miirloo ci Moussa Bakkili wa nit ku nek xam nga nit mom soko beugé man amna ko xamné tay na seetaan Cheikh Ahmed muy wax rek lool daf ko neex xolam dafa seet da mbëggeel mom yalla ko moom bu ko jox rek nit ñi ko neen la té jang taxut a intelligent certificate la rek we are talking about certificate histoire bi ñu indee histoire man am naa interest ci bokk ki gal kan la Serigne jay koda ki Serigne jay koda problème gambi la am problème la am gambi mu ñibi ñew fi dakar pour defaru yor ay remetam ay sungufam ay renam nan day guddal ak day gattal day dëgëral bëgg ngànk suñu lank politique bi bi fi Adji Sarr genn ak MC ak MC xawma ñaseen bobu nga xam MC la lam ci si ci audio ba ci bugar tay moo nit yi impliqué wu si la vie des sénégalais sénégalais yi yeewu leen parce que ku jog rek ku jog rek li Cheikh Anta Diop di wax yow doon wax bañu ma étranger yi ak nasaraan si xép ma damay bañ doomu sénégalais yi xép sen bopp ñun problème boobu la ñu am bañu nit ko wex ki xép ma mais damay bañ nit ku ñuul ki xeeb boppam ñun problème boobu la ñu am ñun du ñu waxee sa bokk Sénégal mooy jóg ne la da ngay fen étranger bi wax ñu ne dëgg la may jaay fii bikit pël photo bi di jaay fii bikit Sénégal bi romb ma man mi nekk doomu Sénégal dem jënd si bikitu pël photo bi may jaay mboq bu dem jënd si borom mboq bi ñun non lañu mel motax ñun dañu wax képp suñu bop sénégalais motax chaque fois muy metti ci ñun moy ni mom rek la la ko tégan na xam nga da nga taxaw bu jël réew mi amna intérêt bokk ci yow na la gestu dina xol ndax bo mënee nit ku nit ko bañ gambier dina jël 1 million registre ko pour ne dafa bëgg a def parti su ma ñëwee nag xool yuutalaay suma xel mi jëfandikoo xam-xam bi ma jàng su ma doyee ma jàpp ci su ma doyit ma bàyyi loolu ku nekk sañ na ak bokk du dee ok ba pare ak yaay yame mi yow ne et eh ak fan nga nga doonoo ko ok yaa ngi dégg ma continuer la ma doon wax li taxawu saa yéene bàcci li doyut ma ci mu laaj Gambia réew mu mel ni Gambia mooy gisuma mukk mu di njiiti réew ci moom ne mu ci moom comme ni ma ko gisutee si suma bopp sañu ma laaj ci réew léegi gis loolu soo gisuloo ko ci moom laag lan nga gisul yan mandat daal lañ nit war am lu Musa Baccili amut pour jiite réew benn man Cheikh Ahmed Cissé suma jàng mutul pour ma laaj réew mi politique Gambie ni mo demé wursak daf ci bokka awma wursak buma may lolu pour ñu fal la da nga laaj am background nit ñu bari mbolo sa parti man awma ko ñet yi ma manqué la te mënut ma def njiiti rew Moussa Yili Bàccari amut lolu manam nima ko gisé suma bop la ko gisé suma moom wala moma genn waaye su dee jàng amul the criteria needed to be the president of this country. déedéet su dee jàng lañ wax criteria réew mi jàng high school certificate until this minute high school graduate lañ wax te Musa Bacary ne am na loolu. am yeneen yi ñu wax yëpp ne Sénégal thank you so much na jërëjëf ne am na ko waaye comme yow journaliste nga defal sa gëstu na am na ko. loolu kay seen liggéey la waaye loolu laa laa wax IEC kon ñooñu njëkk a féel di ñoom ñi dem ba register political party kay ci turi Moussa Badjili ak ñeneen moom mu jiite woon parti boobu noonu ami nekkul seen flag biara ci jamono ji nii waaye munoon na ko nekk IEC dem war nañ koo gëstu kon xanaa da nga bëgg a wax ne IEC dañ ñu féel bugguma wax loolu li ma bugg a wax rek mooy ne njàng mi matewu ko loolu moom leer na ma waaye am na ko amut ko comme journaliste gëstul loolu soo gisee ne njàng mi mut na ko

waaye nit ku nekk xam nga nit moom soo ko bëggee man am na koo xam ne tey na seetaan Cheikh Ahmed muy wax rek. loolu daf ko neex xolam dafa seet da mbëggeel moom yàlla ko moom ku mu ko jox rek nit ñi bëgg neen la. Hmm. te jàng taxuta intelligent certificate la rek we are talking about certificate. bi paré li lañu def ci amna coup et blessure ci guddi si lañ def sen gamu gi galé gamu li biñu paré ci si même niw bi lañu génn lañu génn ñu gamu ñom ñaar ni yalla waxat ñu ne jaam bii ñaan ñu do maraan gaay gars khalifa nee muy def grève de faim yépp fee bëgg dem pour rëcc mais nag beneen parti bi ne na ko yóbbu chambre 10 chambre 10 ci kalidu si turandoowam Californie na ko yóbbu chambre 10 ci kalidu ci turandoowam xoolal lii pare wa pare di di di di tooñarante bi moo tax fekke woo gàmmu gi di leex moo tax fekke woo gàmmu gi ku ko topp da ngay jub mooy kat bu mag Thank you.